بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu aleykum wa rahmatullahi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm di sàkku ci yéen ngeen ñaanal ñu jàmm ak fépp fu ngeen munti ne ci àdduna bi yal na jàmm yàlla yegg ci yéen mbokki itali ñooy delsi di leen yëgal conférence bu muy amal mbokki itali mooy mbokk yi dund sunna dund fii ci itali mbokk yi dund sunna tey dund fii ci Italie ñooy amal conférence le 21 juin 2015 bi ci commune Castel Belforte ci province Mantova via Roma lay doon numéro 33 ci commune ba lañ koy amalee incha allah ñu ngi tàmbali waxtaan bi ak 14h pile fas yéene ko jeexal ci kàttanu yàlla à 5h Tembi bi mu ngi wax ci taarix lenn ci jaar-jaari suñu sang yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ki ñuy defal waxtaan bi mooy suñu oustaz cheikh bamba thiaw képp ku am loo ci leerlu na nga jokkoog moustapha cissé numéro téléphone am di 329 107 34 21 wala nga jokkoog cheikh numéro téléphone 333 648 74 19 wala nga Amar numéro téléphone 380 344 55 71 wala Omar Aou. numéro téléphone 340 76 35 220 ak dégg diine point net ak benn maxtaar point com loolu lañu amoon luñ leen di jottali na ngeen ci teew incha allah ngeen xam ni njariñ rekk moo ci nekk assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.